salaamaaleykum de internet yi di len nuy bu baax di ziar di len beugé ñuy séw sur ko ak contentement notre responsable moral bu dalti Moussa Sidine Moussa Archidat di nuyu kilifa fait ñu actualité oblige tay nak fi indi moy Ada face gannaaw nak euh, ba mu bako yoon loxo te ñepp xam affaire ko gannaaw buñ duggé ci biir dégg nañ fee que ada ada ada ada Adama Korea ah, ak Adama Ndiaye ak ki nga mom moy Aba Aba mom batay tey kenn gis ko ndax moy borom moto bi ak ki nga xamante mom moy mooy plaignant bi nga xamante mom lañ ne mom tamit dañ ko agresser mu nekk nak mënu ñu expliquer ni double plainte la double plainte bi que ni Ada face ki nga xamante mom moko supporté nga xamanteni problem problème bi amon ñu indi moto bi en résumé quoi indi ko mu ter sey mbour ba mu ter sey mbour fekk ada dafa and ak ki xam te ni le fait que mu jël ay moto jox ko wa Pout ñom tamit sen moto ñu japp ko ñu wo ada pour ada plaider leen ba ada ñëwee fi nga xamanteni mom moy mom moy euh, ci tribunal bi gaay ne ko dañ fay am plainte loolu moy li nga xamanteni mom moy problème bi en résumé kim ko amal nak ba léegi kenn gis ko muy Adama Ndiaye ñëw na moom moo porté woon plainte mais gis nañ ni la mu waxoon ak lii dafa am différent juge bi si lañ nekk raison pour laquelle Ada Fass wax na li nga xamante ni moom moo nekk mais ba tey euh, gannaaw nag ba ñu saytoo loolu yëpp léegi dañ ne dañ koy may liberté provisoire léegi avocat am ne mën ñu ko may liberté provisoire puisque Ada dafa am combat moom ak Zos mu war a préparer ji dem voyager kon donc liberté provisoire enragé wu ko léegi ñoo dañ koy dàq bala 23. Lol moy en résumé li nga xamanteni mom moy dossier Ada fas, mais d'après ñun ñu que ni Ada deful dañ ko takal té kiko takal wéddi watna kon donc mën nañu wax ni xel dalna di ci nuyu na xaritam yi nga xamanteni tay ñom lañ gis bañ Ada fas ñom la doon andal ba tay ñom lañ fekk fi ni ki nak kën du ko kenn muy Bamba di xaadim nek lepp Ada fas, di nuyu nak yaayam yi nga xamanteni ndaysan gis nañ ko tay mu tour ay xéewal ndax kon li wax rek dom dafa sax ci bir xol di ñaan yalla dal aada yal nako yalla genné ci barke yonent bi wa ak ñafa nek ñep khadim dañ koy baye mu nuyo puisque fekk na fay mu gëna expliquer pour ñu gëna comprendre khadim ma ngi ziar ma ngi leen fay dina awuzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëf serigne Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf teeti Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul jaraw la ko rafal karafal gàcce nga lama Cheikh Ahmadou Karamba ke nooreen jaa ngeen jëf Famata ma ngi lay fay Arif bala ma ñew ci li nga xamanteni mo moom ci fee yi peut-être résumé naa ko mais ding ko gëna yaatal Ada ak Zarko ñu gis ni Ada bu mu amé kombaam ak Zarko amna ay détails yi fi génn ci digënté mom ak wa écurie ci digënté mom ak nga xamanteni mom moy euh, entraîneur moy Père Koudou té loolu yépp après défatu Ada bi la loolu nan nga koy jàngaté waaw Père El dama naan ñoo koy fay diko délo na amuñu fayam diko wax saa su ne rek aada du dom ci mom aada jarbar la ci mom wala set waaw set lay doon sax ci mom ar Père elas man mi di wax ak yow mu na la na sama carrière bi may nek ndongo dar ba ni ma doy ni Père elas mo yar si ay loxom la yero dara ump ko ci man yalla def tamit mu ak aada kon aada set la ci mom li ñu dom ak wax deug sa yalla mom lele day def nako sudul nonu baye ji mere ko waaye su waxtan amé rek wax deug sa yalla mom dina am te tollu nañ ci te nangu nañ waxtaan te nangu nañ juboo ak mom tamit xam na ñun ñoo nekk xala te ñun ñoo tooñ ñoo ngi jégalu saa su ne ndaxte ñun chaque jour rek doomu aadama motul ndax li ñu naan olof njaay daan na ko wax sax nee la ñaan bu sotti rek wax dëgg sa yàlla borom sonn looloo ñu dal ndaxte tey aada lu jub dal ci kawam dañ koy nangu di ko sante suñu borom amaana munoon na gën a ñaaw wala ñu fekk si loo xam ne tamit dañ ko koy xeeb képp ku aada di sonn ci moom bu ñu nee aada moo def lii dina xam ne ne lii aadaa ko def dina xam ne ne lii du def jëfinu aada problème bi bu mu amee nag dégg naa ci lu nekk ante àdduna wërngël képp laa la wax problème boobu de wax dëgg si yàlla moom lu ma la ci wax téere la aada faas muy waa ékiram aada muy problème mu jakartaay aada faas muy problème bi ko indi fii ginnaaw yàlla tey dañ koy sante suñu borom amaana munoon na gën a ñaaw wala ñu fekk si loo xam ne ne maanaam daan tey aada liñ koy toppee kaamil soo ko fi tegoon ma jàpp ba set dóor sama loxo aada yëgul tinul weex dunk moo ko ci dugal ba caabi féete ko ginnaaw journaliste yi tamit dama leen di balaame ci benn côté ndax seen liggéey la ñuy def tamit wante di def seen liggéey tamit ba yàq deru jàmbur dafa métti ndaxte Ada Fass boo xoolee làmbam rek boo tàppee Ada Fass ak ku mu munti bëreel di nga xool ñii di sonn si aada di nga xool nit nit bu sonn boo ko gisee si image rek nga xam ne ne kii dafa sonn ñom bu fekk ñoo lañ doon dénk micro sax ñun dinañ nangu wante ñi ñuy dénk micro kenn xamul ci arafas lu doyni tarafatal ayni deg deg ra ngay am si arafas ñun lool dañ koy ñaawlu tay ñi ngeen di dékk micro tamit ñuy taxaw di wax do gis kenn ci jugement bi do gis kenn ci projet bi ñoñu bu ñu bisu arafas, kenn du dugg arafas da am ñu muy andal lamb ak avant lamb après ay xaritu bopam wante adam lo len ko gis manam ci lu anam lu doyni xetu fo foo fa talibe fa mañan gisoo fa góose te Ada Fass démb la woon tey soog a ñëw kër nag bu bëree bunt rek juwaloo day bëri te dal nañu ñun amaana ay xala lañ wante ndeyu mbili moo ko waral motul nag wante nit tamit yàlla bindul ko dul juum. Euh, bu ñu ñëwee ci problème Jakarta yi wax nga ko dégg nañ problème bi ndax 20 Jakarta la Amadou Sall moom moo ko jox gis nañ ba mu koy distribuer problème am na ñii aada daf koo jaay. ba indi woon problème bi ba ñu taal ay ay ay t-shirt am indi loolu taal t-shirt yi ak euh, problème jakarta yi ñoo bokk wala say jamantar moo taal t-shirt yi ak problème bi jakarta la ñu naan tombel waral aay gaaf aada jakarta yi bi muy ñëw fekk ko Sénégal aada jakarta bi muy ñëw moo ngi fekk aada voyage nekk si contrat wu INSEPS bi si la jakarta yi ñëw si ginnaawam mu teg ko si ay loxo bi mu ko tegee si ay loxo nag amaana yëg nañ ko waane ñun suñu xel rafet séddale boobu amaana dafa yéex a yegg si waa Fass. comme waaw. Ada Fass da fi jox ko ñeneen ndaxte man nekk ma fi. ok Ada ma fi bàyyi si ginnaaw Ada man su ma demul du dem su demee ma dem su jiitoo ma topp si ginnaaw man su ma jiitoo mu topp sama ginnaaw. jakartaay récent jakartaay man maa ko jël séddale ko ba jakartaa bi ñuy wax waxu mbuur bi nii nii nii si sama loxo la jaar wante amaana tamit xolam moo koy sonal saa su ne. ara buy and ak nit du bëgg nit ki ko si dara si alalam. mais tamit wa fas dañoo déggu ñu né Jakarta yi daf ko may ay gorom moy ay fi mu nekk parcel moy fi soxnaam. mayewu ko manam si soxnaam la wax soxnam nga wax. Jakarta yi dafa jaar si seen loxo xam nga nit tamit soxna moy lepp ginaaw yalla bo amé ñaanu waajur wante tey ñun ñu fi man bok nekkuma fi man bi madame, ba lamb passé 2 jours la fi def voyage di fajj sama tank jagataa yi ñëw na si ginnaaw ba coow am man coow li bi mu amee moom moo ma woo moom personnel aada foo nekk ma ne ko maa ngi dëkk ba dama ay rendez-vous kat ma ne ko lan mooy coow li mu ne ma lii ak lii ne ko yaa juum ana jagataa mu ne ma jagataa day yegg seegul ma ne ko léegi nit nit kooku jox ko sama numéro wala nga jox ko numéro Philibert mu batale koog Philibert jakartaa yi ñëw kër Philibert mu woo ma ne ma jakartaa yi yegg si na ma ne ko na sa loxo set si jakartaa yi naa ko séddale si perasbi, wo presse bi wo yenn grand yi tok waxtaan ak ñom ne jakarta yi kat comme ko xalé yi kat seen 40 lañu ñu wax deug sa yalla kat ñom kat amna yene jox leen jakarta yi wante ñi bu ñu verse nañu verse seen bop li nañu verser verse ko ci caisse bi pour lamb préparation làmb looloo waral li yeb tay tal ci shirt tamit dégg nañ tamit ba Ada Fass que ni am ñu bari ñoon amul staff ñi ne amul kilifa parce que xalé la nekk su yoon. kon donc amul woon benn droit di takk deuxième femme ñu gis loolu mooy indi woon problème bi gis nañu à problème boobu day répété Ada Fass am na staff wala amul staff. Ada am staff ginnaaw yàlla moo tax mu yegg fi mu yegg ndaxte nee nañ fukki nit wala téeméer bu juróom yu dëggoo rek te yàlla rek tax wax dëgg sa yàlla loolu rek staff la fukki nit bu ñu dëggoo rek mu nekk téeméer yu dëgguwul fukki yu dëgg yi ñoo ëpp chance. aada lu mu maam si kaw suuf estaf bu dëgër moo ko ko may te ñëpp nekk xale ay jeunesse rek maga kii moo mag aada aadaa ko bàyyiloo jàng kee même chose aadaa ko bàyyiloo jàng kon xam nga ne am na am na estaf. ok ak tey macha allah di ñaan yàlla mu yokk ñaari soxna war na ko wax dëgg si yàlla yàlla may na ko ba ñeent suñu diine la xëy na nee nañ teel na teelul waaye man suñ ma doon laaj man sama idée man sama jëmmi bopp ak sama gëm-gëm. man moom kese dama naan ko roi de l'arène mooy sa soxna wante soxna moom bëgg-bëggam la quoi tey munoon nga ko fekk si leneen ñu ne aada kat tooñ na doomu jàmbur bu boobaa gàcce lay doon si ñun wante ay soxnaam ay mboqam yi nangu nañ ko ñun duñu def dara tamit lu dul pousser ko dooleel ko ci moom mu xam li mu bëgg xam li ko war ñun roi des arènes la ñu digg ak aada du leneen du soxna du dara roi des arènes lañ ko lañ ñu digg ak moom surtout maa man boog moom laa digg ak nga diga mom roi des arènes Ada fas tak soxna ñu ne dafa bayyi wa fas définitif parcelle lay defee lepp adversaire am nek est ce que lolu tamit jaaduna na. waaw lolu jaaduna na wanda lamb gu amagul dat duñ ci mëna sori. wanda lamb su démé ba ki nga xamné na tay moñu jox kat pour ñu war ko bërel lamb ji su amone dat bu neexee yàlla incha allah rabi ñun dañ koy jël si mu ñibisi dafa am soxna da ka lew si fara tak sunna soxna si day ñew dekk ak mom fi mu dekk lolo nek lo xamne ne priorité lolo nek lo xamne ne logique na. ok mais dañu dégg waa face nan na na na non ñibisi par la force la. fan ma fi nga ngembo bi nga le dara ba yalla def nga doon dara boko woné ginaaw ginnaaw gis sa musiba muy ada di benen mbeur di benen ada, man ada mo tax lamb xam ma ada face mo tax lamb xam ma benn mbeur la am muy Balla jour bu muy ñew golf sax mun na la wax fi mu nek ñun ñu yamana yoy man ma ngi dekk golf taluma sax lamb Balla Mustafa Moustapha Gueye sama bop dañ kaa xar tisatu Balla Gaye laa sol suñu buntu keur ñu fay joxe ay ticket esat wa Fass ginnaaw làmb ñoom Gris Bordeaux yeb xam nañ ko an doomu Fass la pur et dur ndongo dara la fa ba ni ma doy ni ma doy dara umpu ma fa. kon tay ñun luñu am rek ci kaw suuf rek fas ñu ko gënal man ma ngi ni nek fas legi bayyi Fass ñew put man lamb ba lamb mo fi indi ta sama yaay ngi Dakar kon ñun ba legi deretu Fass bi day daw 100 bi luñu am faasa ñu ko gënal aada dafa wara a c'est force du masla dé c'est force force. ñu ne aada peut-être euh, aada instant bi fu tollu milier bi mi dund lo tax lu bari bari bari xaw ko commencé ci rëcc mais en tant que frère kon li ngay wax da fuñu gis aada Fass dañ lay gis yan tey matuwaay ngay jël que ne aada Fass ma ñu xamoon mën nga mën est-ce que mën ngaa défarat aada Fass ma ñu xam aada bien sûr ndax aada mënul dund si kaw suuf si banex si saher si safane ci ñaawteef ba dab ma. faat ma aada moo tax ma takk jabar aada moo tax ma dund bàyyi dund nax naka sudul noonu te ma mag ko fuuf aada daf ma doon indil campénal añ daf ma doon indil cent añ si xale bu ndaw deux mille quinze xam nga ne loolu yàggul ak léegi ba dem ba yàlla def aada bi muy daan rawul moo ngi may fekk Sambour kaat ma nekk fa homme de Sambour comme li la sàkket wa si biir sàppi julli bi laa yuuxoo ngir bëgg naan kii moo may indil añ kii moo may indil añ ba yàlla def tey amaana mu doon mbër mu nar a jël tànk yoo xam ne ne mook làmb du ñu mus a ànd te àdduna du neex bal mook làmb ñu ànd man ma siy teg sama ba di ko gis aada munul def ndakaaru lu mu umb fu dul ndakaaru aada avant muy bëri laalo amul foo dem foo xalaatul si Afrique dew ma fa dem naa Maroc dem naa Dubaï dem naa gàmbi aada tey fu mu nekk rek am na nitu milieu yoo xam ne ne xam nañ na man ak aada ñoo nekk dinañ ma woo ne ma sa mbër bi gis nañ ko bërëb sàngam comme moom mënatul nëbbatu kon lu mu def rek man dina ko wo ërtal ko ba ci problème bi bi bi biñu pelantee central wa central ñoo wo woo di ma wax mo wo ko di dal ci ko mu ma ak ni ak ni la problème bi démé yeguma tinuma yóbbu nañ agent bi 2 jours troisième jour ma dem di sétu boy yi te booy ak aada ñoo dëkkandoon ñi gina lamb lañu ñu amna droit dem séti len bi mu leen seetsee ba war a kenn kenn ko kat yobale mbeur c'est la dajak borom wakam bi wakam bi mhm. léegi bu mu dajeeg borom engin bi borom engin na ko mbër doo wax sa gaan gaan mu jox ma sama engin muy aba mbër na ko waaye engin bi nu mu engin oo nu tinuma fekkoo ma kii dafa may déposé mu na ko noo gaan kii na ma jox sama engin mbër na ko léegi bàyyi ko mu déposé ma si ñëwee ngeen lijjanti engin bi booy bi juge foofu siisu ne aada kon dafa nekk si loo xam ne tey maanaam da koy dooleel ki nga xam na ne moo yóbbu engin am kon aba ak Adama Ndiaye waaw léegi moom bu mu demee pelentewul moom si jëm boppam awa aada la ada aada siiw na li ñu naan siiw di jaami borom boo nee aada rek te moom xam na kër ñoom aada lan moo tax àndu fa ak alkaati yi xam na kër ñoom aada supporteru aada nan ngay xamee nit mu nekk sa supporter ngay nangu alalam munul nekk lii moo indi nattu bi. léegi wàllu agression bi ak na lañ def ba ñëw mbuur. bi ak nan lañ def ba ñëw mbuur jakarta yi ma séddale daa am jakarta boo xam ne ne pour keesu estafu aada fas la man maa ko joxe puut mu war a verser jakarta boobu kat xale yiñ ko jox ñi ko zaal teg seen loxo ñooñu di verser ñoom seen jëmi bopp dañoo ñëw mbuur suwaare këf saagu jàmbur. mooy waaw ak ak ordinateur beeg iPhone. waaw mooy musicien bi. waaw du plaignant ñoom ngeew la ñu këf seen saak tubaab boo déggee ngeew mooy tubaab tubaab lañu këf seen saak. coow li takar naase ñoom ñu daw. ñu jàpp leen duma leen duma yi métti yoon teg leen loxo ñoom biñ leen defeeree ba pare même pas trois jours Saliou si la ma woo ma ko man damaa voyagé wante jarul ngay woo mbër man maa ngi foto yi lépp suñu paree naa la ko wan si sama téléphone ma ne ko su ma ñëwee suma ma waxtaanee bi dina la jox jakarta bi mu ne ma noo damaa war a liggéey nii ak ni ak nii si la woo mbër jot ko na ko jakarta bi de dañ kaa jàpp mbër na ko jakarta bi lan la def mun ne ma ah ay booy de laa ko joxoon booy di si verse booy ñëw fi këf saagu jàmbur bi ñu kafee saagu jàmm noonu ñu jàpp leen dóor leen ma ñëw fi di ñaan intervention ñu ne ma une fois aada Fass ñëw aada si la jëlee oto ndam ñëw fi. ok mais aada boobu dafa fekk daf ko fekk moom ak soxnaam ñuy seeti yaayam. waaw boobu daf ko fekk aada sax moom avant mu koy fekk buur moom aada si jëm boppam moo ngi Casamance làmb juñ ko tuddee woon foofu. bi mu jugee foofu si la dem Dakar jugee waat Dakar si la Macky Sall recevoir moom si la ñëw Mbour. boobu la kañ ñëwoon ban da làmb ji moom jàpp ma date bi jour bi muy ñëw mbuur moom man maa ngi déggante ak moom si ay nelaw man yaayam moo ma woo ne ma aadama de léegi léegi déggante nañ wante fii la war a ñëw wax dëgg si yàlla kat naa moo ngi mbuur si laa ko woo mu ne ma maa ngi nii mbuur ma ne ko léegi laa doon déggante ak moom bi ma ko wax mu ne ma ah, ma ne ko waaw man si ay 18 heures lañ ma waat na ma aada dañ ko arrêté man leen lan la def ba ñu arrêté ko ñu ma affaire Jakarta man leen kon su ma ñëwee dañ koy baa mu ñibbi. te moo demal boppam. aada moo demal ba boppam nit nan ngay sàccee di dem waaw. dafa ñëw ñu ne ko da fi am pelante mu ne leen pelante wala nan laa dëkkee Dakar ñu may pelante Mbour ñu ne ko affaire engin bi moom mu jaar si digg bi wax leen engin bi nu mu demee yëgul tinul biñ koy yóbbu fekkawul. mooy engin waaw mooy engin wakaam bi. Ah, mooy jakarta bi waaw. mu nekk double plainte engin boobu dafa ñëw fii di sàcc. engin boobu dafa ñëw fii di sàcc. mooy ki mu doon sàcc nag. yàlla nattu leen tamit. bi mu ñëwee nag yàlla nattu leen tamit ñoom ñu téye leen fi léegi nag aba woo Adama Ndiaye ne ko sa ancien moo ngi polisu mbuur looloo waral wax ji abaa nag Adama Ndiaye bi mu ñëwee dafa ne aada ki ko sàcc moo aada ñoo ko sàcc mu taxawaat si devant la justice ne yéen dégg ngeen lépp journaliste yi fekke ngeen yéen ñi ñuy interroger yàlla def na fekke ngeen projet bi A ba waaw kon amana li olof Njaay di wax rek ñaan bu soté rek sonal borom. mais gannaaw loolu problème bi amé est-ce yang ci ngi ñoo xamante ne ci lamb lañ nek wala ñoo xamante ne ngi lay laaj procès bi fu mu tok déggantewu ma si ben mbeur amul mbeur bu yéwo faas bu ma ci dégganteel mennu mbeur la ci dégganteel ta man ak mom kuti ba mbow ki ko yor man ak mom ñoo fondo muy double moteur khadim sama turondo man ak lamb làmb wuñu lamb tamit wu ko ak aada di wax manam supporters yi sa su ne nag nañu gën a seen xel ñun ñep man awma làmb mbeur bo xamna ne ne am sens interdit amul sama lepp muy Bébé jeen ara fas Bébé Diène Ada fas double moteur ibu Afia Diène Kaïré mbañi kere ku ci taxaw ak man dag may nuyu ci jamm ak salam mon tontu la si jamm ak salam laaj nañ ko ci non koku nit la. xam nga nit mu nga nekk nit nii ne wa nit dafa yombul quoi Balla Gaye tey rôle bu mu def amoon na grand yoo xam ne ñoo gën a jege aada fukki junne juróom ñaar yoon yoo xam ne dañ ko waroon def te defuñu ko Balla Gaye geste bu mu def am na mbër yoo xam ne ne tey ñoo gënoon mérité loolu Balla Gaye nit la barki Seydina Mouhamed mbër la wante yorul xolu mbër Balla Gaye boo ko gis man la su nga séen ko nga xam ko wala mu xam la 32 dame ngay njëkk gis. daam lu muy dundal Ada bo boo xam te dañ ko gis. non wax deug sa yalla loolu mom foko ko wessu nako xam nga la moy problème doom adam nga yëg nit te yëgu wante nga yeg nit mu yëg la loolu am nga man la su ay fayam ñun dañu am lo xam ne ñun manké wuñ ko la ban gol tapé da nga mëna wax lamb làmb bo la wo ci fas amul mbeur bo xam ne nek na Ikira jamono ay Sadio Ndiaye bi di simbu bi muy nekk Igro Fass fekk na ma Igro Fass ñoom Mama Sonko ñoom Giri Bordeaux fekk nañ ma fa ñoom Laay Ngom Zallo Tafa Gueye. tamit dafa war si ñun ñun ak ñoom ñu ñuy nemmeeku. waaw bien sûr man bi may xaadim ba léegi commencé ànd ak Ada Fass kuti ba mbow benn lamb laa mos a gis seen loxo fësi muy contour Zarko bi Zarko la passé gis waa fas seen loxo fësi amaatul leneen après coow day am rek. ñu profitoo taxaw wax wante amaana tamit ñun ay xale lañ ay tout tànk lañ jiitu nañ ñu si làmb ñoom tamit ñoom suñ jëm bopp ñoom li ñuy woote cent pour cent bi yéen ngi siy dégg est ñun bokk na boole nañ ñu si ñun. mille pour cent bi pour cent bi. ñun boo dañ ñu see boole. Euh, Diène Kairé mi ngi war a bëri ki nga xamante ne moom mooy Zarko. ñu bari yaakaar dafa dem ci camp Zarko te Zarko bi nga war a bëri Diène Kairé est ce que loolu. Diène Kairé aara ja Diène Kairé Zarko bi nga wax aara fas si jëmi boppam Diène Kairé la faral ñun du ñu daw laaku aara amul ku nekk si ginnaawam di daw laaku. amul xaritam la munul nekk avance su Zarko tey bu ñëwoon tey tey tey tey tey tey ñu dugal ko suñu poste séddale ko suñuy waajur yi. Zarko moo ngi may dégg moom ñi mu nekkal ñëpp kuti ba mboow man ak ñoom ñoo doon dundandoo ay nattu sa avance bu ñëwoon tey tey tey tey ñu jël ko séddale ko aada xam nga kan la fi bàyyi ku yeewoo faas kolobaan Gueule Tapée ñooñ la fi aada bàyyi Grand ndakaar kon yéen ci ginnaaw Diène li ma la wax xanaa Diène Kaïré bu soxla woon laa la wax eh Diène boo ñëwee ñun staff bi jaay ñu bologu billet barki Seydina Ousmane Mbacké Noreyni la ko si xaarim taalibe loo indi si bologu billet ñun suñu jëm bopp ñu def suñuy pexe jënd ko ñun amuñu dara luddul medina Médina la ñu am Fass Colobane gol tapé wante supporter yi sa su ne nañu bayyi xel man awma sans sens kenn du bëre bama jënd billet damay ñëw jël sama billet dem sama yoon koñ bu ci nekk xamna ci mbeur bébé jéen a ngi ni open pressam am aada dem na fa ñaari yoon wante tay da ngay dégg lamb lo xamna lu nekk ay sans contraire. ñu ngi naan ay bébé jéen ak aada sax. waaw mais tay gis na ko. njit yalla koy fal. barki Seyna Ousmane Mbacke Giri bordo rakam ñoo doon jangandoo Ndar mawdo Jonn giri kuti ba mbow laa la wax lu ma perte ci làmb giri moo ma ko xañ barki Seyna Ousmane Mbacke nooree ne bi ma yaakaar kaso teg naa si giri boroo Balla Gaye dañ maa dàq ba rey ma. giri boroo Balla Gaye giri moo gën a métti samay mbokk ku si nekk loo indi dama la naan jëndal ma dàll jëndal ma ensemble jëndal ma lii lii bi ma déggee ne giri boroo Balla Gaye da kaa duma duma yu métti damaa dof feebar naa si biir kaso bi deux mois ngir bëgg. ngir amul lu mu ñu jaral sama tàng si làmb bu naroon njëkk damm ngir Bordeaux baabooy amitié kon xam nga ne loolu ñun 100 pour cent bi la ñuy dund ñun lu ñu am Fass Colobane Gueule Tapée maintenant Grand Dakar ñu ko gënal. aada bàyyiwu fi mbër. aada buñ ko joxee avance mbër bu jugee banlieue barki Seyna Ousmane Mbacke Noré ne yàlla bu ma fekk roi des arènes bu xalaat ma dog ak moom àdduna ak àllaaxira. kon bu ko indaatoon avance Zarko su nga ne ma bu ko fekkoon si biir prison bi léegi ñu waxtaanee ko rek mu ñëw dama naan leen valider leen. déggoo li ma la wax ma dog ak moom adduna ak alaaxira maay tànkam maay kanamam maay ginnaawam du xalaat dara. mais tey ban message nga jox waa Fass am nañu yaakaar ne 23 dina génn est ce que pare pare ngeen pour récupérer seen doom recadrer ko mu mel ko ni mu mel. suñu doom suñu yàlla mayee wér ak fekk tal ba borom bi def lii gën ci kattanu Serigne Touba incha allah rabi muy di la 23 suñu doom bu ñëwee ak jàmm ak salaam ba ñu toog waxtaan ak moom si jàmm ak salaam ñu defaruwaat ba pare moom mu ñibbisi. moom soxna la am amul gelle soxna la am dañ kaa muur si faratak sunna moom na ñëw dëkk si ñun ñoo talatul pet petoo pet petoo daf ñuy sonal quoi. ñëw laa ñoo talatul pet petoo daf ñuy sonal aada munul génn ba nit na la ay eh, aadaa ngi fii man la ñuy woo man maa mujjee woo booy te damaa sonn dama yor jabar yor ay doom. bàyyi sama yaay dakaar aada eh. moo may dugal Ndakaaru Fatma Diaw barki Seyna Ousmane bu dul làmb bugguma Ndakaaru bu ma fa duggee sama yaay laay xool naxanteeg moom namp si moom jox ko wecci dem sama yoon. waaye bu dul aada Ndakaaru fu mu xam na jëm. aada moo tax man ma xam làmb moo tax ma dund làmb ñaata doomu aadama ñoo may woo si affaire làmb danga may wax ma ne la ciment laa benn yoon laay tooy boo ma kuule du ma jàppati dara ki ma jàpp rek laay jàpp su bàyyi woon tey ma bàyyi tey. ñun aada rek la ñuy topp barki Seyna naa Mbacke Noreyni bébé jën maa ngi lay nuyu di la fay barki Seyna Ousmane Mbacke Noreyni bi ma yaakaar bébé jën looy yóotu si yoonu Serigne Touba ba si Roi de Zalane barki Seyna Ousmane Mbacke Noreyni yàlla na la ko suñu borom tas waaw bébé jën maanaam musuñu maanaam lii bettuma ci moom bébé jën maanaam lii lii barki naa Ousmane Mbacke Noreyni bi ma yaakaar bettuma ci moom bébé ñi ko yar man si laa bokk bu muy nekk xale di nekk tout tànk di nekk riseng di nekk buuse comme tey si man grand yi ko yar ñoo ma njablu barki sey naa Ousmane Mbacke nooree ne bi ma yaakaar aw ma sens interdit wante geste dafa rafet ci doomu aadama ndaxte tey ndakaaru bëri na bopp de Serigne Ndiaye 2 ah. bébé Diène ah. double moteur Diène Kayre Mbañi Kayre ñun ñoo mujjee Ibou Afia ñun ñoo mujjee wante njiit suñu borom moo koy dogal ci doomu aadama barki Seyna Ousmane Mbacke Noreyni aada defagul ci làmb cinq ans cinq ans la gars yi di wax defu ko fa am nañ fi feebar boo xam ne ne dëkk bi fépp la ñu tëj boo calculer deux ans yi manqué na aada kon trois ans la def si làmb ak li ko suñu borom jox ñun saa su ne dañ ñaan yàlla leen borom bi defal li gën si ñoom te gën si ñëpp roi des arènes bu nekkee fii bu ñu neexee tiitaru Diène Kaïré ko yor suñu neexee tiitaru bébé Diène ko yor suñu neexee tiitaru Ibou ko yor suñu neexee tiitaru Médina bi la Fass Colobane Gueule Tapée Grand ñun topp ñun nit comme banlieusards yi wax ñun ñoo leen gën a téppéeral barki sey na Mbacke nooyu ñii dar mbëri mbëri laa la nga génn ci Balla Gaye eh, boo ci génnee Balla Gaye eh. laa wax boo ci génnee Balla Gaye génn ci Modou Lo ñii nga xam ne ne lépp si palmarès su làmb koo ci wax mën na la man moom ñoo nekkoon kaso waaw ñi leen dar ah, ñi leen dar koo ci wax kuti ba mbow ñii dalal nañ leen ñii ñu dalal leen ñii ñu dalal leen suñu kanam kon aada léegi jël dem rek la fa am. day jël rek dem ku si nekk ak sa sarax bi ñu la war a saraxal. yàlla yàlla defal tawfiq ak taysir. si yow. barki Serigne Saliou Mbacke maa leen raw. bàyyi leen di dëkk micro ñoo xam ne ne xamuñu aada faas dafa metti si ñun. sama yaay bi ma sukk jur barki alxuraanul karim keroog dama doon jéngoon ak moom si affaire aada dégg nga lii journaliste yi wax ma ne ko du dëgg yaay. barki yàlla bëgg dafa metti sama taw aadama